صلاة الله ثم السلام kan moo ko sut kenn sut ko bu dee tabee kan moo ko sut bu dee joxe kan moo ko sut bu dee óolu yàlla kan moo ko sut kon kooku daal mooy ki nga xam ne moo sut ñi sut yëpp te kenn sut ko Cheikh Ibrahim radiyallahu mooy suñu sëriñ sëriñ dañ koy roy liñ koy royee mooy lan ñu topp ay tànkam wax na ne suma taalibe yi ku ci góorgóorlu bay jox ay farataam gannaaw bu xamee borom ba pare di def laazimam kooku daal moom mu ne desal du ko dara benn bés dafa toog ñu ña nekk Zaria mu daal ne Abdul Xaadir Jilaani waxoon na ne naanalkat boobu su ma jotoon la ilaha illallah su ma jotoon waa ji waxoon ne bëgg na yàlla te mënu cee jot ma ko demoon kon danaa ko jox waaye nag ñu toog di di di reer rek na man de waxuma loolu dama noonu su ma ko su ma su ma ko fekkoon danaa ko jeexal ba dootu gis boobu te loolu la def ñu bëri ci am na kilo bu mag ku jóge Nigeria ba muy tar bi ñu ba àgg dafa summee ko def taati neen yàlla amul amul yéen foofu la wax daal ak imaam mooy sëriñ bi kulli ma aal min kalima loo soxla ci sëriñ rek danga ko fekk ci bàyyi bu dee xam-xam la kan moo raw bàyyi bu dee am-am la kan moo ëppale bàyyi bu dee leer la kan moo ne civilisé la kan moo gën a civilisé bàyyi daal mooy bàyyi باختصار نحن في هذه الليلة نتذكر مولانا الشيخ إبراهيم نتذكره في مشيته نتذكره في ذكره لله نتذكره في توصيله لآل الله إلى الله حتى يعرفوا أن لا وجود إلا لله كل واحد منا ذاق هذا المشهد وادعى وقال أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو waaye nag moo tam baay bi fi mu fooree mooy ki dem ba xam nga gisoo dara dul yàlla bu delloo si waat dafa nga jàkkaat bi nga nekk nga nekkoon di lekk na nga daan lekk di tëdd fa nga daan tëdd te ba léegi xam nga ne yàlla rek moo fi nekk guddi gi daanaka jeex na kon li ci des rek mooy ñu ngi ñaan yàlla di tëbbu ci Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass ne ko képp ku fanaan ci sant yaa ko fi tax a ñëw ku ñëw tey yaa ko fi tax a ñëw képp ku yaakaar yàlla ñëw la ñëw seet si kon ñu ngi ñaan maa ngi lay ñaan ci suñu turu doom nga tëbb ñëpp da ku nekk ku nekk xam ne man tay ba jëlee naa ba loo xam ne bi may dem am woon yàlla mën na loolu yàlla ñu ko defal amuru ala diyaari diyaari layla moo tax moo xam ne wala te taariful ayyaamu wala wala atil ayyaamu mal abdu maara wala tasalil ayyaamu booy laajte bés yi ne leen ana bàyyi da nga xam ne xamuñ ko. wa ayna makaani ayna sama place maa dara na makaani kenn xamul sama place bàyyi mooy bàyyi te lépp loo xam ne bàyyi nangal na la ko li mu ci jublu mooy mook yow ngeen nekk jàmm yàlla di topp seen ndigal seen ndigali borom di bàyyi seen tere borom di eh, jox seen farataay borom di def lu baax di guddi ak bëccëg waxtu wu nekk ngeen koy def ndax yàlla mën a yërëm képp koo xam ne nekk na ci bàyyi wax na ne wa man yuhibbuni wa man yaraani fii jannatil xuldi bilaa buhtaani bàyyi dafa toog benn bés ñuy wax ne am na ku waxoon Cheikh Tidiane waxoon na ne am na ay taal am naa ay taalibe Cheikh Tidiane yoo xam ne ku leen gis altine ak alxamis sa yaram araamal na na ko bàyyi na moom day sama sëriñ loolu la wax waaye man dama man ku ma gis rek waxtu woo ma gisee ak foo ma gisee rek sa yaram araamal na safara baay mooy baay shine koya mana son annabi shine ya koya mana son alqur'ani shine ya koya mana son salat shine ya koya mana duk abun abun kirki jazakallahu kulla khairin wa matta'ana bi هذا النور الذي تركه لنا إلى أن نلقاه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين gis ngeen bu ngeen xoolee dëkk bi li mu leeree tey nii lamp yi leer na ko de billahi bu lamp yi faram ci la dëkk bi gën a leer ndax leer ak bàyyi la leer ak bàyyi la tëbb ak bàyyi la nàndal ak bàyyi la joxe ak bàyyi la bëgg ak bàyyi la ku bëgg rek la te bu la bëggee nekk di yow bu nekkee di ñëw yaa ñëpp eh, eh, ci moom benn rek ngeen di ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi gërëm yàlla bu baax a baax ñu ngi fas yéene beesal suñu kóllëre ak moom moom Cheikh Ibrahim ndax mooy ki nga xam ne kóllëre moo dëgg yàlla jar naa jàpp Cheikh Ahmad Tidiane li mu wax sànq kenn mënu dara waaye xanaa li ñu mbuñaanoon rek kon ñu gërëm leen baax a baax a baax képp kuy taal bay bàyyi xam ngeen ne ñu mënoon gisal nit ñi ne dafa am mbas moo xam ne mu ngi ci àdduna bi tey ñu koy wax nag coronavirus moo tax kë mbooloo waaye se waa kër bàyyi taalibe bàyyi coronavirus mun leen a yàgg a dajee te dañ ko fi génne mu تجدد نشر في كرسي والإنس وإن شئته الشيخا فذلك وصفه وإن كان بعد عليك صلاة الله ثم السلام فطرى